Papa Sall tey nag ñi ngi fii ci Pable yi ñu àndanteeg Adama Baawo àndanteeg suñu papa El Hadji Omar Diawara ak délégation bi ñu àndal yëpp ñëw fekk si ko fii ci ML automobile Pable yi nag yaakaar naa Sénégal kenn du ko présenté ci wàllum oto Sénégal gi bu nekkul numéro un kenn jiituwu ko ci boo gisee fii suñu ginnaaw xam ne liggéey rek am solo te moom ci liggéey rek la ne saa su diggante ak Omar Baawo nag di alxamis ak ajuma bis doxu ci moo ko Omar baaw ñu seq lu ne ma xam ci dara nag heure bu ne moo ko Omar Baawo daañu ko wax heure bu ne moo ko Omar baaw daañu ko seq ay business te macha allah lépp dañ koy def ci lu jub ci lu baax loolu nag moo waral tey jii ñuy tëgg Grand Prix Kirène Omar Baawo ni samay nit samay xarit te Omar Baawo leen doon tax a jug ci course hippique mooy luy jàppale course hippique Omar Baawo jéegoom yëpp mooy course hippique kanam. Omar Baawo jéegéem yëpp mooy bu sañoon képp ku nekk ci fas am teraanga ba moo tax ki dem moom moo importé ay box jënde ko cent cinquante millions jënd ñëw may ko course hippique loolu nag ku bëggul course hippique jëm kanam doo ko def loolu nag moo tax tey jii bi ñu tëggee grand prix Kirène bii mu ni na ngeen ci boole Pape lay ndax te kenn la ci man taman xam naa ci lu bëree bëri moo tax tey ñu ñëw indi la sa enveloppe bii ci grand prix Kirène édition 2024 ñu àndandoo ñun ñëpp indil la ko boole la ci course bi di la wax ne sa digganteeg Omar Bawo dañoo xam ne alxamis ak ajuma la bis soxu ci moo tax tey ñu war a lii délégation bii Adama Bawo magam ju baax ji nag jiite ko di nit ku baax di kenn ci Omar Bawo di magam ñu bokk ndey ak baay léppam di Omar Bawo ñor ñu moom loolu rek na ni Omar Bawo ñor ñor nga ko waaw parce que fépp fu ñu dem waaye weew fii ñu dem moom dañuy àndal leen ak Adama Bawo loolu wane na ni fii ñëw ñor na ko moo tax tey ñu ñëw fi Kontan nañ bu baaxa baax. bu teg ko ji ndax foyewul bopam te ku ñew fi ba nga séq ak moom da nga xam ne li mu am ay pexé moy ko propagande moko dafa liggey way dafa doon loolu. so demee ndan fal kolam ga nga fa. so demee kadior maam yu baax ñu lan dimbali gor yi. way bi nga ñewé wa fexé nga ba bok ci xalé yi dimbali gor yi. kon yow lu ñu ci bis bi rek. Omar Baaw ngay doomi ndayam faaw ñu bolale ci te Papa sal bo duggé ci bi ci biir bi. di nga xam ne kii moo bëgg yi waajuram photo alaaji ibnu lay bi ngay gis si kaw mu tim ko bàyyi ma daan dimbali ko ca ndand mu màgg baax waaye jaar ci tànki bàyyam ya alaaji Omar Diawara jàmbaar jaa ngi nii loo ci waaw mais jërëjëf ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay bi di ko rafetlu bu baax Omar Baaw nag sama xarit la nit ku baax la yàllaa ñu boole ñu bokk liggéey bokk lu ñuy def te lépp rafet zo mi di frère moom tamit nekk nit ku baax di sant dem la fi rom di moo naa ma suba naa fi ñëw dama laa soxla vraiment ñu ngi koy rafetlu te bis bi nga xam moom lay préparé di ko waa def nii yàlla defal ko ci ndam te lépp lu mu ci séntu rek yàlla defal ko ci teraanga ci kàttu yàlla yéen dañuy ni ñu baax ngeen xam nañ ne kuy wax kuy jëf mënuñoo bokk liggéey ni bu yemee toog ba ba ku ñëw fii xam ne gor si fi yàlla rek bàyyam moo daan dimbali gore bàyyam bu màggal musaana jot jox waan daan da sa bés bi dafa tey Pape lay ni ku ñëw fii di nga xam ne lii mu am ay para pagaat mayu ko ay pexe mayu ko liggéey ko may waaw boo